je m'appelle Ahmed Diop Fall mon Sénégal Chérie, mimi, Mimi mimi, c'est quoi. Mimi, c'est ma femme N'est-ce mimi, c'est ma femme. Alors, ah, c'est pour, euh, pour vous que qu'on fait la- le certificat, ce c'est pas pour Mimi Chéri. Oui, euh, ah, d'accord. Hein, pour Mimi Chéri, c'est pour lui dire que vous pouvez pas faire le jeûne. Oui, Mimi chérie, c'est ma femme. Voilà. Ah. Et parce que votre femme a fait le jeûne, non Pour le ramadan Oui, oui, oui. Mais vous voulez la suivre ou pas <laughs> Parce qu'un régime alimentaire, ça peut aider hein, euh, pour, oh, pour la circulation non du sang. Parce que quand on mange McDo, on a encore faim après. mais chez le ramadan j'ai le droit de faire la femme à le droit. Voilà, Écris-le-moi. <laughs> dis, dis, écris-moi. Faire la femme, faire la femme, faire la femme. Faire la femme, qu'est-ce que ça veut dire faire la femme Tu le sais <laughs> Faire la femme. Un mari et sa femme. Oui, mari et sa femme. Écris-le, écris-le. Ah! Écris. Ouais, ouais, écris-le. nga nga am nga bëggante nga, nga. Oui. Écris-le. Euh, OK, très bien. Vous revenez dans une semaine D'accord. dara du ko jënd yow su ma nee la di nga woor di nga woor tant que doguñu ni bisimilaay dara du dugg ci sa gémmiñ incha allah waaw mais yéen nit ngeen tubaab bi xool ma ni ma naay lekk ay KFC ay McDonald KFC McDonald boo ko lekkee da ngaa dog d' ak ay mburgel mbur mburgel kin mburgel kin yooyu laa war a lekk waaye kii moo ñàkk jom waaye yow kañ nga ñàkk jom kañ nga ñàkk jom kañ nga mel nii Diop amal yow yow sóora lii kay la ko jógee hôpital bi ci docteur bi. mu eh. làmb sama fu ne. bu wax sama yoon nekkul ci <laughs> bi sama fu nekk laal na ko fu ne laal na ko fu ne ni ma mën woor wàcc na ma mënatumaa woor man man man nga ñëw taxaw naan tension bi te yow nag maa ngi doog a xam ni ku iñaan nga mimi ku siis nga. parce que yow seen lekk yu bon yi ñetti xobu salaat ak ñetti ñetti soble ñetti pombiteer yooyu nga bëgg ma lekk ko man. sama faatu yàpp ya? nga naan sans yàpp ya, yow ko da ngaa bëgg nu robi ma yow ya, da ngaa bëgg ma faatu yàllaaw nga naan sans man man nga naan sans yàpp maanaam naa lekk ay xob yu bon yooyu ay xobu salaat ak xobu yu bon yooyu yow demal ci biir demal demal ci biir signé nga sa divorce nak? sa divorce yow sa divorce ngay préparé man ak yow sors de moi nag sors de moi eh kii defu la dara kii defu la dara la la wax Diop ñoo bokk ndey ak bàyyi maag yow amal jom lii nga nekkee julit di ko nekkee sa ndey julit la sa baay julit la sa mag sa bokk yëpp julit nañu yow gëmal yàlla ah. lan mooy xiif doo gëm yàlla nga woor léegi nag xam nga nan laay maa faaleetoo sax pañum tubaab yi damay woote Sénégal woo sëñ Abdallah Diouf wala sëñ Abdou Aziz Diakhaté ni leen batale leen mag sëriñ su mag si fii waa njëgeen neen na ñëpp ñëw ma dem ca ñoom laaj leen xam-xam dëgg ak koy mit ndax dégg naa sax waa ji fi doon dawal fas ba feebar ba sonn dañoo mujj seet ko docteur yi xool ba sonn gisuñu dara bi ñu yóbboo ci sëriñ yi mu xool ni leen muy biis gi mu doon def di dawal fas looloo jeex mu ne leen ji mu doon def loolu moo seey kon man bàyyi naa tubaab bi ca ñooñu laa jëm ñu faj ma. baax na waaw ca ñooñu laa jëm. c'est fini. baax waaw